xanaa di leen sant di leen gërëm euh, ci seen teewaay di wax ni euh, li nga xam ni tey moo ñu fi indi mooy waxtaan ci wër mbirum euh, blé parce que amis bi nga xam ni mooy mbootaay bi nga xam ni moo teew tey fii juróom-ñaari usine ñoo ko séq muy Grand Moulin di NMA di FKS

1300 tonnes yooyu nag mooy tax euh, bés bu nekk boulanger yi nga xam ni ñoom nañuy seqal di leen jox lu tolloog 8 millions de baguettes par jour waaye liggéey bi temps yi dafa tame tabatembe c'est-à-dire que daf ñu lol lol lol, parce que euh, àddina bi li fi xew euh, moo jéggi dayo jéggi dayo bi mooy bi at mi tàmbaleeg dafa am yu xew euh, ci àddina bi benn bi mooy euh, tàngoor bi ak euh, maanaam jafe-jafe yi nga xam ni moom la dëkk yi nga xam ni ñoom ñooy bay blé jànkonteel tax na ba lañ doon séentu maanaam ci blé amuñu ko maanaam donc dafa gën a néew FAO sax xayma na ci aduna bi nu nu mu tëddoo tollu na ci trente mille tonnes loolu nag Covid bi dafa ñëw yokk ci euh, mbir mi parce que Covid bi tax na ba dëkk yi nga xam ni sax euh, ñoom daan nañu dundal tuuti seen bopp euh, tal ñu woon mbay ba lépp luy lang ci dëkk bi rek dañ koy jënd. alors bu fekkee ni yow déjà ki nga xam ni moo daan bay la moo daan bay barewul waaye ña ko soxloo dañoo gën a sakkan daanaka kon blé dootul bari euh, ñàkk bari boobu nag moo tax euh, njëg li di gën a yokk euh, bi ñu jëkkee toog waxtaan ak état bi boobu blé bi mi ngi toll woon ci premier trimestre bi deux cent soixante-dix euros ñu gis ni bu ñu tolloo 210 euros bu ko continuer di ko jaayee 800 euros. du dem état man ak ah, man de mun naa leen jàppale jàppale bi nag mooy TVA bi 18% ah, ni kon baax na toll comme réew mi yëpp soxla na nuñ bénéfice donc dañuy liggéey rek pour dundal

la ñuy perte par bés buñ ko toppee gën ngaa néew ña fay liggéey dañuy perte seen emploi parce que di liggéey di jënde fukk di jaay juróom-ñett mënta wéy looloo indi waxtaanu tey pour wax ni prix bi mënta ñàkk bañ a yokk te buñ koy du ni dañ ci wut bénéfice mais yokk pour mën ña fay liggéey continuer di jot salaire ñuy fàttali nag que lii xew fii Sénégal mburu saagu farine di fi jar seize mille six cent Côte d'Ivoire bii nga xam ni moo ñu moo ñu gën a jege euh, am ay usines yoo xam ni ñoo bokk lu ñuy liggéey bokk bateau yu ñuy def ñoom ba ñu yokkee yóbbu ko vingt et un mille yàgg na parce que xamoon nañ ni loolu kese moo mën a tax usine yo continuer di liggéey maanaam buñ ko buñ ko wàccee rek perte day dikk te perte moom fu mu munti am non seulement de créer emploi mais aussi ngay emploi